julli goo xam ne ko koy jilli dafay yëg ci moom ragal benn sabab la boo xam ne xëy na la ko waral mooy xare la walla lu mu yaakaar bu génnee loolu dana dal ci kawam walla ay noon walla loo xamante ne aju na ci julli ragal nag danañ ko xaaj ñaari xaaj xaaj ba ca jiitu mooy xawfun sadid laa yatamakkanu fihi l insaan mina alsolaati itlaaqan ragal goo xam ne ragal gu tar la ba doomu aadama bi du ci mën a julli comme nu mu normaalee loolu ta nekk mu ne su su fekkee boobu am na fa yu yusalli ala xasba xaalihi sawaun solla waaqifan aw wa huwa yajri kaana ila al aw ila gayriha mu ne kooku nga xam ne mu ngi ci tiitaange gu metti tiitaange goo xam ne jéggi na dayo ba mënta julli ci façon bi nga xam ne moom lañu xam ñu ne kooku dafay julli comme niñ ni mu ko mënee moo xam day julli moo ngi taxaw wala day julli di daw wala jublu na xibla walla jubluwul xibla l'essentiel que day julli waa mbokk yi lañu waxan ci ku feebar rek su fekkente ne julli yegg na foofu ci ku feebar tey julli yegg ci kii nga xam ni dafa ragal ñu ne ala xaal nu mu mën a mel dangay ngay julli moo xam da julli di daw moo xam dangay julli di dox danga nga jublu xibla wala jubluwoo xibla lu ci mën a nekk julli du la wàcc ba ca tegu mooy iza kaana insaan fi xaalihi xaw fii xaali xawfihi yatamakkan min aadaa'i sola kii moom dëgg la dafa ragal waaye mën naa julli mën naa julli taxaw joxe julli gi comme niñ ko mënee su boobaa ñu ne waa ji fa yu addi salaatul xawfi dafay julli julli koo xamante ne ku ragal la mbokk julli di julli ku ragal tushrau salaatul xawfi ala kulli qitaalin mubaahin ka qitaalil kuffaari yoonal nañ julli ragal euh, ci xeex ak yéeféer yi kooku dañ ko yoonal tusra'u salaatul xawfi fi kulli qitaalin mubaahin bépp xare la boo xam ne diggante jullit yi la ak yéeféer yi su boobaa yoonal nañ ca ka nga xam ne moom mooy julli ah mu daal julli julli ragal dalil bi nag xam ngeen ne alquraanul karim la sunu borom subhaanahu wa moom moo ko yoonal ci téeréem bii di alquraanul karim wàcc ab aaya ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci suratu nisa aaya 102 borom bi ne ko wa iza kunta fihim fa aqamta lahumu salaata su fekkee yaag ñoom yéen a nekk na leen jiite ci julli faltaqum taifatum minhum maaka na lenn ci mbooloo mi xaaju daa di yow ñeneen ña fal yaxuzu aslihatahum nañu téye seeni ngànnaay fa izaa sajadu falyakunu min waraikum ñoom bu ñu sujootee nañu nekk seen ginnaaw di leen wattu kon julligi dafa am dalil ci alquran waaye am ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sax na ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam jullik ragal yonent bi julli na ko ñeenti yoon julli googu nga xam ne mooy jullik ragal ñeenti yëpp nag nekk ci ay xare yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare ji na ko ak ñooñu nga xamante ne ñooñu ñoom ñooy yéeféer yi nga xam ne ñooñu la doon xareel mu nekk ñeenti xaaj yoo xamante ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam xare na ko ñeenti xare yooyu mbokk julit ijmaul umma tamit ànd nañ mooy jumhurul ulama muttafiquuna ala anna hukmuha baaqin jumhur dañoo ànd ne atte boobu te mooy atte julli ku ragal dafiy des baaqin ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu fii des la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko euh, sart nag ñi nga xam ne moom mooy sart julli ko ragal mooy an yakuuna al aduwu wa yuxillu qitaalahu nee na noon bi daal di ñëw noon bi bu amee bu fekkee am nañ noon su boobaa julli ragal am na su boobaa nag comme julli ragal am na loolu dafay am ñaareel bi mooy an yaxaafu hujuumahu alal muslimina xaala solaa ñoom jullit ñooñu sax ñu ragal buñ demee bay julli noon boobu dana leen songu su boobaa dañuy julli julli koo xam ne atte ragal la am na melokaan buñ koy jullee sifaatu salaatil xawfi waaw lan mooy melokaanu julli julli ku ragal mu nekk ñeenti melokaan yoo xam ne sax na ci shari'atul islaam wala juróom dem sax ba juróom benn yoo xamante ne sax na ne noonu la ñuy jullee julli koo xamante ne dafa ragal mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala Euh, bu fekkente ne lii lépp sax na euh, ci diine lislaam lii lu muy wane mooy màggaayu julli julli moo màgg màggaayu koo xam ne feebar du tax nga bàyyi ko ragal du tax nga bàyyi ko ak situation lu mu tar tar tar tar yow jullit bi munoo bàyyi julli kon sopp nañ jullig ragal euh, ki nga xam ne moom mooy julli julli googu buy julli mu daal di yone ngànnaayam baña sàggane boppam ndax kat alxuraan moo ne fal yaxuzu xisrahum wa aslihatahum nañu jël seen ngànnaay waaye wattandiku bu baax a baax a baax a baax a baax takku bañ a yàccaaral bañ a mbokk julli yi ba ca tegu mooy salaatul xawfi fi safar mooy julli ku ragal ci tukki léeg nit dina nekk ci tukki mu ragal a julli ndax ay bagaasam wala àll walla place bu lëndëm walla la ca aju su boobaa dafay julli julli ku ragal yu baaxu fiha al su boobaa dagan na ci moom moom moomu nga xam ne moom moo tukki te mu war a julli julli ragal daganal na ci moom sax mu daal di julli daal di wàññi julli gi bépp julli gu mu doon julli ñeent may nañ ko ko mu daal koy wàññi mbokk jullit yi salaatul xawfi fil xadari jullik ragal ci teew koo xam ne tukkiwul loolu tamit dagan na jaiz su fekkente ne laaj na ko ah noonu ñoo wàcc ci barab bi wala ay ay ay bukki wala ay gaynde wala luy fàddaate moo dugg ci dëkk bi su boobaa nit ñi mën nañu julli jullik ragal wala barab ba ndox ma nekk moom moo am ay jafe-jafe ba kenn mënu faa dem su boobaa jullit jullit bi mën naa julli jullik at te ku ragal ñoo ngi doon wax sànq yoonal gi nga xam ne ijmaa yoonal na wala melokaan gi nga xam ne eh, yoonal nañ ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy julli jullik ragal ñu ne am na juróom benn melokaan yoo xam ne Eh, nit ñi mën nañ koo jullee jullik ragal waaye juróom benn melokaan yooyu yëpp nag benn imaam mooy am nit ñi rek ñoom ñooy ñëw di julli di xaaju su xaaj bi jullee dem beneen xaaj bi ñëw julli ak imaam bi benn imaam dong lay am comme ni ko alquran waxee ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu def si ñun dégg ak topp di soññ mbokk jullit yi ci fukki fan yi ñu nekk muy fukki fan yoo xam ne eh, bépp xeetu jaamu yàlla bu nit di def rek mën na kaa profitoo ci bëccëg yi walla ci guddi yi jàng alquran def ay azkar woor tudd yàlla rawatina kàbbaar yi ñu bañ kay fàtte doomu aadama bi moment bu nekk war nga koo mën a def ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu azza kamaaluhu mu nangul ñu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.